Heavy Mess.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 turandoo tantam boobu la ci wuyoo ci BW Faye at yi toll ci ñaar fukki at ak benn étudiant bi sax nee ñu tantam ji mu vidé ay kontam moo ko yar bi mu nekkee xale ba ni mu toll gannaaw ba mu defee njombeem lu rëy loolu nag vidé konti tante gi moom étudiant bi bi ñu ko laajee li mu wax mooy nee na benn sofoor buy woo ci turu am Samb am ñaar fukki at ak juróom-ñaar di cousin sax ci waa ji muy génnal moo ko ko a ne dina publier ay vidéo loolu la étudiante bi wax ba ñu koy déglu ca section de recherche bu Colobane moo taxit bi section de recherche defee seeni investigation mujj nañoo defere étudiante bi ak waa ji mu tuumaal ne def ko doon chantage ca procès ba nag chauffeur bi étudiante bi tuumaal indi na version nee na le 12 octobre bi weesu étudiante bi ci boppam moo ko envoyé vidéo yu bon yooyu. astafurlah. xale. sawaay ne mu dal di koy sauvegarder naka noonu na ci la ko envoyé benn collègue am ci la ko étudiante bi envoyé vingt mille francs dal koy jëndal peeru dal teg ci def ko muy cadeau d'anniversaire am chauffeur bi teg ci ne étudiante bi ci boppam moo yàgga daw ci côté am ngir bëggoon mu génn ak moom maanaam ñu coronte moo tax ne saa ne daf ko doon envoyé ay vidéo yoo xam ne dungu la ciy def yaa seexul ibrahima baaba lamin jaas ay ti jant bi moom it teggi na tuuma yi de ma ne teggi na teg ci kam ne waa ji ci boppam moo récupéré vidéo yi koy jël ci téléphone am ndax ne téléphone am dafa paanoon mu dal di ko koy jox ngir mu jébbal ko copain bi muy génnal ci boppam ngir mu réparel ko ko naka noonu ci la waa ubbee téléphone bi dal rocci vidéo yi waay waay waay yi xale mais c'est honte bi mu roccee vidéo yi nag étudiante bi nee na ci la ko tàmbalee di chantage nan ko bu deful li mu wax dina ko publier ci internet bi ci la ko joxe sax rendez-vous ñu daje corniche ba étudiante bi nee na mu jot ko versé huit cent mille waa ji soxla waat xaalis joxaat ko Hervé ca corniche ba mu dal koy dolli six cent mille waaye jant bi fu muy jëlee xaalis li doy war nag mooy li enquête bi wane ak li étudiant bi wax comme yàlla ak yàlli la wax ah! ak ah, dee waay ndax enquête bi li mu wane mooy eti jant bi ci boppam moo doon invité sofoor bi di ko jox ay rendez-vous ci restaurant di ko paye te ko doon jox rendez-vous sax eti jant bi ci boppam moo doon jox waa ji transport te bu waa ji egsee ci restaurant bi yëpp eti jant bee koy fay waaye eti jant bi fu muy jëlee xaalis enquête bi tamit wane na ni eti jant bi bi mu amee baat moom ci boppam moo invité waa di ñu fete seen baat mu génne six cent mille takki taabal gi <laughs> ay waay waay waay ku mel nii de moo ko mën takk ñaareel ma ne ci bi bi ñu xoolee tamit gis nañu ne envoyé na waaju ñaan bee sàll xaalis waa ji mu doon génnal dëgg-dëgg tamit di woo ci turu oo saw moom it bi ñu ko dégloo nee na ci boppam eti jant bi jox na ko cinquante mille francs dalti ko koy may ngir ay frais personnel am c'est eh. pas bien comprendre bi ñu xoolee ba xool naan gis nañ ne eti bi wommi na ci compte tantam yi lu toll ci deux millions cent mille lépp mu jox koy góor ay réew mi toj na wax mooy dëgg moo tax maa ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona laa wax la xew ca Tuuba guy salaam romb na doy waar ab sëriñ la fa taalibeem dal di jàmpaaka mu dee ëttalaw taaliba bi nag nee nañ lu tax mu def lu ni mel sëriñ bi ci boppam daf ko doon bundu xatal bu mokkalul woon ay leçon ndax taaliba bi daal di vengé wu ba sëriñ bi tëdd ndax ñoom ñaar ñoo bokk nekk mu jël paaka dal ko koy jam sëriñ ba at ya mu ngi toll ci ñaar fukki at ak ñett nee ñu taaliba bi ko faat at yi mu ngi toll ci fukki at ak juróom bi mu ko jamee sëriñ bi dafa daanu ci suuf deret ji sangu ko ñi ci njëkk a bi ñu alerté ba ñu yóbbu ko teguñu ci li bare sëriñ bi dal di ñàkk bakkanam ma ne réew moo xam ne lu ne nga fiy dégg taalibe bu jam sëriñ ba mu dee askay mim réew mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz